n'est ndax dina ñëw wala du ñëw wala dina bokk wala du bokk da naan blessure bi kañ lay fekkee Ndiaye wax na ko sànq peut-être match lay lay deuxième match peut on peut espérer on peut espérer même si c'est soixante-dix pour quatre-vingt dinañ am Sadio peut-être que c'est possible mais premier match bi bu fekkee Sadio ñu ne ñu ne ñu dem suba ñu def nañ examen complémentaire wu gannaaw suba Aliou Cissé ne peut pas prendre le risque de faire jouer Sadio même bu fekkee loolu jot même bu fekkee diggante bi nii. mais diggante bi dafay. su fekkee da nga a préserver nga am ambition de jouer les grands rôles ou bien de jouer à partir des gros matchs éliminatoires directs ci coupe du monde nga am ambition boobu ñi fa nekk kenn bonu suñu équipe ah, macha allah on a de très bons joueurs maintenant mun nga ménager Sadio nga xeex avec les armes que nga xam ne ni Sadio bu ñëwee les matchs éliminatoires directs tu pourras l'utiliser à 100 pour cent mais boo ko yóbbee nii c'est-à-dire que sens bu mu war a durer ak yow maanaam da nga koy utiliser de façon très moyenne parce que déjà il n'est pas en forme yaa ngi koy utiliser donc il n'est pas en possession de ses capacités donc boo ko yóbbee risque la maintenant man fi ma bëggoon wax moom mooy euh, Bayern Munich wax nañu Sadio euh, dafa gaañu ci euh, tête péroné bi la hmm. la blessé durée bi il faudrait que fédération sénégalaise de football man ñoom laay ñaax ko en fait tey l'état du ñu mën a def lépp ba ba bu fekkente ni Bayern mën na mettre le jour à notre disposition ñun ñu jël ko nga xam même bu ñëwul sax Sénégal mais nañ ko jël fenn foo xamante ni ni suñu médecin dinañ fa nekk ñu wax ñu exactement Sadio euh, ban durée la war a toog parce que on a par le passé ay ay ay yu bëri yoo xamante ne au niveau war a bokk ci mondial ay médecins def erreur ci seen papier. le cas de Ribéry on se rappelle. en 2015 y' a un y' a un médecin de Bayern Munich qui démissionné. parce mm-hmm. Mm-hmm. dafa juum ci durée de d' indisponibilité bu bu joueur war mm-hmm. moom sax moo démissionné. cas yi bëri nañ fii donc cas yu mel noonu bu amee donc ça dire que euh, waxuma la ni Bayern li luñ seen liggéey de mais ñun tamit ñu war a nekk près du joueur nga xamante ne ni ñun xam nañu sa que ça va valoir pour l' équipe du Sénégal ñu mën ci jël yenn taxawaay yi nga xamante ne. est ce que du looloo tax ñu communiquer nii ah ñoom. nee nañu en parfaite collaboration non je pense que montre que y' a y' a y' a y' a eu communication entre la fédération sénégalaise de football et le Bayern Munich les deux ñaari ñu ngi échangé Euh, na su waxee dara li nga xam ne ça concerne la la coupe du monde la prochaine coupe du monde Sénégal soit dinañ jël jéem a xool les résultats wala ñoom ñu laaj ils ont le droit ñu laaj Sadio Mané suñu mu ñëw au regroupement de de Paris bi nga xam ne semaine euh, weekend bi nii lay am ñu ñëw ñu consulter ko ce n'est pas la première fois Ismaël Sarr euh, même près daanaka même cas moo amoon ci coupe d'Afrique bi dañoo ñëw on a estimé que blessure ba ñuy estimé dañoo ne fii ak loolu la xam moo tax mu ne day yóbbu Ismaïla Sarr par force wax neen ba sonn mu ne da koy yóbbu dans le cas de Sadio peut-être la même chose peut se répéter on l'espère donc ce sera la même chose je ne pense pas que Bayern dina taxaw di bañ surtout que le, je pense que y a y a cette interaction entre le Bayern Munich et le et le Sénégal c'est vrai que le Sénégal perd perd euh, perdrait gros en cas d'absence de Sadio soo bëggee jël exemple bu importance Sadio Mané di am ci collectif dañ koy xool ci Liverpool xool ko rek ci Liverpool Sadio Mané ba mu ren ji ils ils ont des problèmes leur flanc gauche est malade soo xoolee seen équipe bi difficulté yi ñu am yu ci bëri côté gauche la Sadio Mané ba mu demee ba léegi soo xoolee Robertson ne joue pas à son mm-hmm. à niveau parce que am na benn complémentarité bi nga xam ne euh, Sadio sa Sadio am na kook moom Sadio Mané dem na Luis Diaz commencé na ñëw mu blessé Darwin Nunez dañ fay teg c' est pas un excentré de métier fii Sénégal nga ñëw nga taxaw di xalaat absence su Sadio Mané ce serait des je dirais que parce que déjà absence Saliou Ciss ci match amicaux yi daf feeñoon alors que Sadio Cissé c'est le c'est le la Sadio Cissé Sadio Mané doublette daanaka parfaite la parce que ñoom ñaar ñoom ñoo joué ndoo JO 2012 génération boobu noonu moom moo ñëw la kii bi suñu coupe d'Afrique suñu coupe d'Afrique ñoom ak ñoom yëpp côté gauche léegi nga ñëw Sadio Cissé ñu ngi laam-laamee dem déjà amul club nga ñëw tourné ne Sadio Mané du dem donc déjà animation offensive équipe bi yëpp ngay remettre en question c'est vrai que quelqu'un comme Iliman Ndiaye bon même rôle que kii lay joué <laughs> daanaka même rôle que Sadio lay joué dans son club c'est le meilleur buteur sénégalais en championnat avec 9 buts mais ce n'est pas Sadio Mané. en tout cas waa Sénégal yëpp euh, xam nañ ma lii du sama miin ah man <laughs> euh, nit ko am ambiance la nit ku. xam nga waaw waaw waaw mais tey mais tey vraiment du ma ko làq du ma ko nëbb euh, am naa pression te dama tiit quand même parce que xam naa li Sadio mën ci réew mi ak équipe bi ak football tey dafay apaiser am day boole xol yi tey réew mu xaw a compliqué sax dañ fay bëgg sport wax wax waxuma laak réew moo xam ni opposant yaa ngi jaar ne ñii di jaar ne donc saajo bu dugalee bi ñëppay génn àndandoo ñu kaf ñu reetaan donc économiquement am na lu mu commencé def ci réew mi parce que ñi jaay ay mayo ñu ngi commencé di kaas naan Sadio bu jéewul ñoom mayo kan la ñuy jaay parce que xam nañ ne mayo Sadio mooy gën a dox mais mais économiquement euh, bi nga xam ne ñoo moom xam nga dañuy wax la CAN ak la coupe du monde dafa wute parce que coupe du monde bi je pense que ñoom allemand yi nga xam ne ñoo moom Sadio euh, chaque match bu Sadio joué di avancé ñoom am na lu ñu leen jox ci ay match Sadio donc loolu je pense pas ñu jël Sadio di ko jéem a rënk ak di ko jéem a tënk même bu dee gaa ngi naan même bu dee gaa yaa naan ñuy xalaat ci deuxième tour bi am Sénégal moo tax ñu jéem a kii Sadio yooyu mais fi toll nii xam naa après dinaa ñëw ci internet yi mais fi toll nii au pire au pire Ndiaye Sadio bu demul au pire Ansu au pire bu Sadio demul kan la ñu xalaat ni moo war a mën a jël place Sadio. première personne Iliman ah. Iliman. inna lillahi wa inna ilayhi tos kaay mais tos mayel journaliste la ñu wax. mais tos non ñëwal ñëwal tos kay mën nañu. abaa li nga wax rëy na. inna lillahi wa inna ilayhi rajiun non loolu dina mel ni dëj. non mais il faut ñu xalaat loolu tamit il faut ñu am plan B au pire. mais man waa Bambali waruñoo nelawee noonu Bambali ñoom mystiquement war nañoo pare pare boo xamante ne war nañoo mën a am ñaari Sadio Mané Sadio bi fubal Bayern na ak bi fubal Sénégal munul doon benn ñaari Sadio Mané lañu am copie collé bi la jox Bayern na original bi dina ñëw incha allahu bi dina fubal fii te yàlla tamit nañ dimbali yàlla pitié barki alxuraan sam papa ngi kër def fa dara mhm. na ko blessé <laughs> tos tos dinaa ñëwaat ci yëpp. tos maa ngi gis ba ñu tànk ñun ñëpp. maa ngi gis <laughs> maa ngi gis nit ñi am pression ba ma gis kenn ci euh, Twitter bi muy laaj Youssou Ndour amani euh, amani googu nekkoon fee ca Mali. Euh, <laughs> waaw waaw waaw ndax waaw ndax doo ñu mu dimbali ñu donc fiñ ñu toll nii au pire Sadio bu ñëwul kan la xalaat ni moo war a jël place Sadio. logiquement Iliman que tey au moins. moom la Aliou Cissé expérimenté woon plusieurs fois c'est vrai que bi mu ñëwee ci équipe bi mais on voit que ni su soxla benn rôle boo xamante dafa jege pour poste Sadio Mané di jouer moom la maintenant est-ce que dina Sadio n'est pas remplaçable pour l'instant mmh, mmh. <laughs> on trouve des moyens peut-être pour substituer un tout petit peu manquement mais ça va être difficile pour kenn endosser rôle bi parce que au Sadio Mané ce n'est pas seulement euh, le numéro c'est un homme en fait dans le terrain mm-hmm. Sadio Mané dafay waxtaan Sadio Mané dafa nekk exemplaire Sadio au delà bu bokkee ci terrain sax yenn joueurs yoo xamante ne ni peut être ñu ngi doog a def seen première sélection euh, la porte est ouverte à tout le monde imaginez des joueurs yoo xamante nii ñu ngi ñëw pour def benn match ak Sadio ñu leen ni da nga war a bokk une compétition comme la coupe du monde nga war a jouer ak Sadio c'est tout ce que cela représente moom ngay ngay xool celui-là au mi ngi nekk koo xam ni dafa taxawul askan xam nga émotion que ça a suscité man je comprends un tout petit peu parce que Sadio ce n'est pas le talent seulement ce n'est pas le ballon mm-hmm. mais Sadio c'est aussi leader, c'est aussi l'homme social c'est aussi l'homme qui investit son argent koo xam ni euh, fi mu commencé la com fi mu fi mu juddoo la commencé def cosaan la commencé dimbali askan wa fa nekk donc dañ koy xoole miroir la en fait mm-hmm. mais euh, je je prie je touche du bois pour que Sadio Mané participe mais au cas contraire si Sadio Nous restons aussi une nation, ça il faut aussi que le reconnaître. Nous restons un pays, nous avons des garçons et des, et mhm. euh, bien bâtis et préparés psychologiquement pour aller à la conquête. Au, au, au moins dafa war a def sax mu toog benn place mu am contentement que nii man su ma fi nekkulee ndekete ñii mun nañ maa sigil wala kenn ku xam te ne ni bokkul ci bi mën nañ laa sigil réew mi yëpp mën nañ am yaakaar ci yow donc cela cela montre que ni personne n'est indispensable mais la perte de Sadio man ça traverse pas mon esprit pour l'instant ah dans mon statut le matin eh, une coupe du monde sans Sadio Mané je l'ai mis bi ma amee xibaar mënu ma wax indispensable confrère yi ma woo pour jàllale leen émission journal mais bon personne ne pouvait me donner une explication très très correcte mais nous continuerons à prier dinañu ñaan mais une équipe nationale sans Sadio Mané ki koy remplacer peut être dinañ am benn jour buy jouer à sa place mais remplacer Sadio ci équipe nationale du Sénégal boobu dina nekk en tout cas man ak yow ñoo bokk suñu même micro parce que sama bopp sànq bi may sumeeku ci laa daal nga xam ni internet uh-huh. euh, ñoom ñu ngi bind ñu ngi wax ñoom Sada Thioub ñu wax ay Mbaye Diagne ngi wax ay Ilimane Ndiaye moom man pour man expérience laay wax man expérience euh, ci coupe du monde la ñu jëm est-ce que am na expérience ak niveau boobu nga xam ne mooy coupe du monde loolu après yéen ñi nga xam ne yéen journalistes yi yéen ma ciy leeral mais kaaw Sada Thioub bu ñëwaat kaaw Mbaye Diagne mu joué attaque de pointe lool tamit day ñëwaat mais kaw wéef nga xam ni tabarkàlla euh, mën ngaa jële fi ñu toll nii euh, sa xaalis ci sa banque indiko ci sa wallet wéef yooyu yëpp day ñëwaat ci kanam naaj dugg mu gën a yaatu fi ñu toll nii euh, kan la ñu xalaat ni moo mën a jël mais Crépin mu ngi ci équipe bi Ismaïla Sarr mu ngi fi ñoom Pape Matar Sarr rek ñoom ñëpp ngi fi ban aménagement la Aliou war a def journaliste yi loolu moom du yomb ndax bokkul du bokk ci plan Aliou Cissé ah, bokkul woon ci plan Aliou Cissé pour dire vrai il a ses 23 nii après 26 yi ñu jotoon woo bi passé euh, ñu euh, joueurs yi ñuy woowoon ci deux deux les deux matchs amicaux là il a ses 23 26 yi kay la ñuy xool yeneen place yi les trois places autres places là nan lañ doon xoolee mais cal kenn musul calculer que ni Sadio Mané ci du du mën a dem ci coupe du monde donc day nekk loo xam day faussé waxuma li mu faussé Sénégal noonu la faussé euh, sélectionneur bi actuellement nii ku dul nelaw mooy sélectionneur équipe nationale bu Sénégal mooy Aliou Cissé benn Sadio Mané c'est des années mais depuis quand 2011 2012 ba léegi mi ngi ci équipe nationale bi depuis Aliou Cissé ba tey mi ngi accompagné ak moom wala ñu ko euh, bokk ci plan wu plan de jeu wu Aliou ci lépp. sànq ñi ngi doon wax ñaata match la xool boo xoolee bi fi Aliou Cissé nekkee ba léegi matul 5 match yoo xamante ne euh, Sadio Mané euh, bokku ci donc c' est mën nañu wax comme supporters sénégalais yëpp ah impensable pour xalaat nii léegi nag on a des hommes comme ni ñu koy wax am nañu effectif boo gisee coupe du coupe d' bi gars yi ni ñu demee petit à petit match par match ak ambiance bi amoon ci groupe bi ak détermination bi ñu ànd bi ñu àndaloon peut aller en euh, en coupe du monde waxuma la sans Sadio Mané mais bien sûr Sadio ci biir groupe bi mais à Sadio Mané pas à 100 pour cent man loolu je préfère ça mais ñu gis ko ci biir groupe bi mu gën a réconforter équipe bi. loolu option boobu laa gën a gëm sax. voilà option boobu man gis naa loolu man. je pense que en dépit de lépp luñ ci mun ci wax et tout blessure beeg yooyu s'il y a une infime chance Sadio Mané mën a jouer coupe du monde même si bu dee dañ naan de kii dañ dañ ko yóbbaale parce que man. Euh, déjà moom le joueur Sadio Mané bu dee am na chance boobu noonu jàpp nañu may nañ ko may ko espoir bi nga xam ne gëm nañ dina jouer il va prendre ce parce que déjà je me rappelle en 2015 boobu waroon nekk première coupe d'Afrique am. Mhm. mu blessé avec Southampton juste avant la CAN. Mhm. Koeman bañoon mu dem. Sadio Mané dafa forcé c'est lui qui a qui a qui a pris son téléphone moom moo woowaa fédération sénégalaise de football. ñu woowaa Southampton ñu andi boobu noonu. c'était sa pure Coupe d'Afrique avec l'équipe nationale du Sénégal 2015 parce qu'il n'était pas à 100 pour cent. mais malgré tout mais am na lu ko gën a jege mais fi à la CAN. ñoo ñoo ñoo mooy loolu noonu. gars yi dañu ko doon mu ne moom il prend ses responsabilités. lu ko dal pare woon na sax pour signer. waaw pour signer jour détermination moom détermination côté boobu noonu ñàkkuñu ko léegi nag li ñuy toog di xool mooy maanaam bu je pense que combinaison yi bëri na pour jéem a pallier absence mais ci lépp Sadio Mané dell da koy yóbbu da koy balote entre côté gauche ak euh, digg bi soit ñaari option am na je vois peut-être mu jël fin fait de 4 2 bi nga xam ne il met papa Pape Matar Sarr comme euh, pointe haute milieu terrain bi mhm. mu jël euh, benn aile bi yóbbu Ismaïla Sarr beneen bi Ilimane mu sànni Boulaye ja wala mu mu xool entre Crépin ak Ilimane beneen bi maanaam mun na jël crepin wala Ilimane dugal ko si digg bi jël jël jël Ismaël Sarr boole ko keneen teg Boulaye Dia ci kaw donc option yu bëri na mais une équipe nationale avec Sadio Mané bokkul diamétralement opposé avec une nationale sans sans Sadio ay ca grand Pape Seck mooy suñu correspondant ca Marseille mooy turandoo influenceur boobu mag boobu nga xam ne moom mooy Pape Pape l'influenceur euh, grand bi nee na euh, une équipe euh, sans Sadio Mané i Sadio il est irremplaçable donc c'est impensable donc loolu la grand bi wax ñu ngi koy nuyu bu baax a baax a baax mais euh, ñu ni tamit lu Sadio blessé blessé du tere xam ngeen ni ce samedi moo Dieng moom blessé wul euh, day ñëw fii joué fii donc loolu ñu waajal ko bu baax mais Toch euh, ñëpp a ngi laajte yow ak sa papa ban problème ngeen am ba nga bëgg a sacrifier sa papa ndax Sadio moom moo blessé <laughs> lam yow yow yow lan am nga frère am nga benn xale booy génnal am nga yooyu yëpp mais dañuy gis chaque fois bu kaa yi amee ban problème nga amu benn problème ak sama papa pour wane ni Sadio Mané fooree si ñun nag damaa xool li gën a ci man ma sacrifié ko amaana yàlla bu xoolee loolu dina ne ayu ndeysaan am na sénégalais yu amee nii détermination ci Sadio Mané <laughs> ah man de ba doon def lii xaw ma woon nii la seen Sadio Mané nii la toll seen xol yi ëf tànk bi yàlla def ci wér yàlla def ci xéewal mais Sadio Mané ak lu mën xew dafa war a dem parce que Sadio Mané ngi échauffé wu rek gañe na équipe. moom la sànq nee naa Sadio ñu génn onze bi di génn. ñi génn par kenn ngay compter ba Sadio mujjee génn maanaam loolu muy def suñu xol yi. ilaha illallah Sadio ngi échauffé rey na équipe loolu moom kenn waxatu ko mais tamit nañu wax ak waa FIFA parce que coupe du monde bi moment biñ ko organisé moo rey ñëpp. parce que quinze dernières quinze premiers matchs yi gars yi championnat bu ñu ko fi ba bu coupe du monde amul ah yëpp joueurs yu mag yëpp ci la ñuy blessé. jour yëpp ci lañ blessé parce que seen entraînement yi daaw ba ren affaire yooyu noonu Qatar gi moo Qatar gi moo metti Qatar li ñu bëgg a imposer dañ ko dul nangu abaa ñun ñoo dematul ñun ñoo bàyyi euh, tos en tout cas li xale tos tos tos li xale yi di wax tos xale yi euh, ñu ngi sensibiliser fi ñu toll te ñu ngi sensibiliser ku kawe ñu ngi koy sermonné di waxtaan ak moom di ko baab naan ko euh, ki nga xam ni mooy sa jaam bi nga xam ni mooy defar jumaa ji jaam yi nga xam ni mooy defar hôpital yi jaam yi nga xam ne mooy dimbali néew di doole yi naan ko xam naa da nga koo yëgul mais sa jaam booboo blessé <laughs> loolu la gaa yi di wax yaay jàll la ñuy wax <laughs> ñu dem xooli ban annonce euh, Momo Dieng euh, ce samedi au Cosaan Night euh, ñu ñëwaat léegi ci plateau bi daal di yeggali ak invité yi nga xam ne ñoom lañu am tey xam ngeen ni seetu bi yàgg ngeen ko min ci ambiance ak ci ruubeeg yooyu waaye tey xol yi neexul tey kenn tranquillul tey ñu dem xooli ban annonce bi dañu ñëwaat léegi léegi acce ci bés bu mag samedi 12 fan lañ koy defee fii ci cosaan cosaan nga xam ne c'est une salle mythique nga xam ne ah man de rêve la maximum de bruit United fu ñu mën a nekkit united When you wanna make it right Foog ñu jubóo ma gën réew mi ci nekk am na ngi noonu gars yi dafa mel ni ay information euh, ñu ngi wàcc ni ñu toogee ci plateau bi di waxtaan dem seetaani li nga xam moom mooy bande annonce bi ñëwaat am na yenn information yu wàcc gars yi euh, man nag Laltinoor laa mënumaa denc diw gars yi ñu ne euh, Sadio blessé wala sans blessé aliw xalaatul woo te du woo Sadio Aliou il est optimiste donc dina woo saajo léegi journaliste yi rek la ñu bàyyi ñu waxtaan Toch boo soxlaa da may laaj ma ab micro mën la ko jox sa micro maa ko yàq nii Euh, yàqale sama bos. sama xol sax dafa maa mayul ma wax parce que à tout moment su ma waxee mun naa craquer instant dama énervé. Ah, mën nga wàcc plateau bi kon. ayca <laughs> léegi euh, yéen xalaat ngeen ni Aliou euh, dina def liste sans mu woo Sadio. non c'est je pense que c'est c'est impossible ça Aliou Cissé instant yi ku toog di ko laaj di ko di ko laaj une coupe du monde sans Sadio Mané xalaatul loolu noonu sa ce ce n'est même pas dans ces dans ces options je pense que mooy lu wax ni instant yi ñuy def pause publicité bi. mooy le fait juste que le Bayern bañ euh, wax clairement la nature de la blessure parce que forcément euh, dinañ am nature man sànq bu ma duggee sur le net di xool genre blessure bañ ne tête tête euh, du tendon ba ma demee xool gis naa ni trois semaines en général la ñuy lay demande trois semaines après ci fin trois semaines bi ci ngay commencé waat di daw donc je pense soo calculer ak durée coupe du monde bi si tu bien Euh, peut-être il sera peut-être juste pour le deuxième match mais troisième match mënu koo am donc xam naa peut-être prévision yooyu noonu la Aliou Cissé am ci ci blessure bi donc médecin du sport yi ñoom ñoo ci gën am ñoo ci gën xarañ pour ñu wax si mais s'il y une chance Aliou mu fekkee sax au moins le dernier match de poule c'est sûr que Aliou Cissé va l'amener en dehors de tout tout même si bu dee huitième de finale lañ naan dina apte pour huitième de finale muy bañ loolu pour Sadio Mané bi nga xam ne c'est la tête en de l'équipe nationale du Sénégal. waaw loolu effectivement li Lamine wax loolu la je crois que tey composé une équipe après demain xam naa ne à l'heure ñun ñu toog ci plateau bi di wax Aliou Cissé mi ngi nekk tëju heure bii. <laughs> mi ngi tëju. Euh, xam naa ni équation yi ma doon wax sànq rek Aliou loo xalaat oh, bu dee option la xalaat na ko pour mën a am Sadio Mané dans son mais je sais que euh, médicalement dafay compliqué de trop euh, très juste euh, xam nañ ni. premier match Sénégal bu fekkente ni Sadio ñu ne sax suba benn communiqué génn parce que tamit annonce des médias yi surtout ci les réseaux sociaux ak yooyu noonu ak tout le monde est spécialiste bu blessure amee xam nga Sénégal <laughs> li nga xamante ne mooy réalité bi euh, amuñu ko mais li ma gis mooy Sadio Mané bu tey bu waree bokk c'est sûr que premier match du Sénégal du ko joué deuxième match boo ko waree football dina metti dina metti mu nga football mais doo ko am 100 pour cent parce que bu la footballalee vingt minutes ça veut dire que yeneen yi ci des du ci mën dara da koy sacrifier te pour le pour le de la saison d' ailleurs pour le reste du championnat bi ma nga garder ko deuxième match peut-être troisième match nga mën ko récupérer parce que tey nous sommes euh, coupe du monde bi c' est le 18 lay démarrer donc bu waree nañ tey ñu ngi ñu ngi le le le le le 10 apparemment le 9 donc suba la le 10 soo calculer li ñu desee apparemment 10 jours moo ñu desee premier match du mi ngi toll peut-être 10 à 11 jours. 11 jours entre suñu premier match soo ko calculé déjà am nga une semaine bu génn ba pare donc il te restera deux semaines bu fekkente ni tête de tendon la wax xam calcul yi tamit foog nga def ko noonu parce que <laughs> ay taskatu xibaar la ñu on est obligé de faire ce calcul là bu fekkente noonu lay demee peut-être que tu pourras le récupérer au cas contraire bu Sénégal jeexalee les premiers euh, euh, paliers des matchs nga xamante ni am nañu suñ qualification pour dem ci euh, seizième de finale yi on peut avoir